salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum. Euh, waa 7TV mhm. di le nuyu di la ziar di rafetlu dalal bi di nuyu aussi la star. Mhm. di ko ziar di rafetlu dalal bi en tout cas mbégte dong laay am saa su dee su ma ñëwee 7TV comme ni nga ko waxee. Mhm. c'est mon bébé. voilà macha allah